si tolluwaay réew mi de fi mu ne nii képp koo xam ne ni am nga lu loo am nga am nga am nga xolub jullit wala am nga xolub yërmande bégoo te yonent bi dafa wax ne ab jullit bu amee lu ko metti na ko wax ci làmmiñam bu dee mën na am na kàttanu làmmiñ su dee da koo mën a dindi ci loxoom mu dindi ko su yooyu yëpp diisee ci moom mu xam ne naqarlu rek la ko mën ci ab xol na ko naqarlu nun nag mën nañ ñaar yëpp mën nañ koo naqarlu mën nañ ko wax ci suñu làmmiñ ndax lii am ci réew mi kenn mus kenn mus koo yaakaar te yëf yi doyee dina suufe na te it gàccaana itam ndax nit koo xam ne nii nit ñi yow gënoo ci nit ñi gënoo leen ci genn fànn ci du jub juddu du dara ñu dajaloo jox la seeni doole ngir yaakaar jun amoon ci moom ngir yaakaar jun amoon ci moom dajale jox li dafa war a xam ne li mu yor lépp doole yi nit ñi lañ dajale jox buñ ko dindi woon dara du ko amati nguur nag ku am tawfeex dëgg wala ko am xaas moo ciy nekk te doo ci lab mandité nguur dafa am borom xam-xam bu mag bu wax ne nguur doroog la maanaam nguur dorog la boo ci nekkee ci mandité ngay ne ndax man nga ko ak sañ nga ko yi ngay dégg rek ak loo bëgg mu mu jàppandi te itam dafa am keneen borom xam-xam ne am nopp bu tàmmee dégg caaxaan bu déggee dëgg day tàng jër day tàng jër te itam euh, buur moom du dégg du dégg lu dut wii rek loolu mooy waral bu demee ba mel ne li ko dénkoon dafa jeex bu amul tawfeex wala mu am ndimbal rek da ciy bëgg continuer te bu ca continuer mën na caa dajeeg loo xam ne ni du gën ci moom te dafa war a gore nag dafa war a dafa war a gore ndax yii muy wax yëpp moo taxoon ñu ñu moom ñu andi ko fi comme bu demee ba ñu fal ko fukki at ak ñaar mu des benn fan man li ma ci gën a jaaxal mooy benn fan a ci des benn fan mu daal di ñu ñu changé avis ne dañ koy kiiwaat loolu moom euh, jëf ji moom moo moo moo wàcc moo wàcc lool moo wàcc lool te du ci am na mukk moom du ci am ndam. même bu fiy nekkaat rek ak bu fiy nekkaat ak wate nañ ko wate wuñ ko lu fi manaam a am maanaam maanaam mën naa bañ a neex te itam euh, fitna yi nga xam ne dañ koy jàpp di ko teg ay nit maanaam borom bis bii dafa daan wax ne euh, jaamu yàlla ci jaamu yàlla ndax ya kenn musta jox yàlla loxo waaye yàlla lim yor lépp ci nit ñi la ko ku am yërmande ci ñoom yàlla am jëw yërmande waaye nit koo xam ne jàppaate tëjaate tëkkuwaate foo toll di wax wax yoo xam ne nii wax yi kenn xamul lu mu doon li fi amoon du fi amaat ay xeeti kàddu yoo xam ne nii nit bu jiitoo maanaam da ngaa war a sant yàlla ci jiitu gi la gi la yàlla jiital ndax gënoo fi comme ni ma ko waxee rawoo fi ëppoo fi xam-xam du ci askan la du ci lenn loo xam ne nii moo tax ñu ñu tànn la kon loolu bu la ko yàlla defalee yow loolu li nga war a sant mooy xajoo nit ñi li Cheikh Mouhamadoul Fadal daan wax naan xajoo naa leen xajoo li Cheikh Mouhamadoul Fadal daan wax naan xajoo naa leen xajoo seeni bang-bang loolu nag baat bu gàtt la Mbàkke Mbàkke xajoo nit ñi yomb na waaye xajoo seeni banga banga moo xaw a jafe moom nag booy xool day mel ne day dafa am lu ko mett ndax teraanga ji ko yàlla defal maanaam daf ko war a da ko war a delloowaat ci nit ñi génn génn nu rafet wut buntu bu rafet mu jaar mu jaar fa waaye bëgg a teg nit ñi na ba noppi di am jàmm loolu moom yàlla muyu ko kenn bu na ko xool ci ña ko jiitu woon firxaw naag keneen ak te itam ay mandaak ay yooyu yëpp lu ne day jeex maanaam lu day jeex ndax moom boo jeexu tamit dund gi jeex maanaam bu yëf yi jeexu te dund gi jeex te bis bu ne dana jàll moo tax it te yii ñuy def yëpp ay caaxaan dong la nit ñi ñu jàpp tëj leen ci kaso yi nit ñi du jeex ay borom kër yi jàmm ay borom so ñoo xam ne ni dañoo am ay ay seen i am nañ ñoo xam borom kër jàmbur lañ ñii di ñii di soxnay jàmbur ñii di doomi jàmbur yoo xam ne seen waajur dañoo am ci ñoom yaakaar nga jël nga jël leen ñoom ñëpp xaj leen liberté ñu doon yaakaar ne xay na feeg weer ñu génn ñu yokkati ko loolu tamit lu doy waar la lii mu dugg daal moom du ci am ndam ak képp ku ko ci mën a jàppale ndax ñi ko ciy jàppale dafa bëri maam ñi koy jàppale dafa bari ndax yëf yi moom dafa saxi ren te itam euh, suñ Muntaxa moom manees yàlla na ko yàlla yàggal lool te ko wér te manees na ko cee génne bu baax ndax moom lu leer la waxoon nañ ko may yi tëlatu ko kon ñoom bu ñu demee ba ba ba jaaxle di fi ñëw loolu ay caaxaan képp la ñuy def ak yàpp ko waaye nañ xam ne réew mi moom moomuñu ko doonuñu ko seen i baay te itam fi lañ koy bàyyi ndax ñu ah Senghor jaar na fi jàll Abdou Diouf jaar fi keneen jaar fi jàll te itam euh, manaam damay wax ne ku ñàkk worma la ci njabootuk Cheikh Mamadou Fadal moom ku ñàkk worma la ndax bu bu amoon worma euh, maanaam maanaam même yii ñuy def ni duñ bàyyi ba jamono yi ñu ko def ndax dégg naa fitna ji bëri na lool man léegi xewuma ci dara ndax man ci màggal gi laa focus fan yëpp xawuma lii xew <laughs> ma lii xew ci réew mi waaye weer yi comme ni ma ko waxee léegi weer yi nag avant l'islam di ñëw sax daawu kenn daawu ci xare kenn du ci tuur deret jàmm lañ ci daan woote loolu warees na ko koo fàttali maanaam xam ne weer yi moom jàmm rek ci musam te itam bu fekkee te ñoom ñu néew lañ ci réew mi maanaam matuñu matuñu matuñu matuñu mille personnes ci ñoo xam 17 millions la ngeen bëgg a toog ci loolu moom leen leer jeex na ndax dootu amati ci àdduna ndax nit ñi dañoo yeewu te dootuñu nelawati ñëpp dañoo maasee yeewu ba noppi jóg taxaw te nit bu jiitee maanaam dafa war a sant yàlla ci jiital gi ko yàlla jiital comme ni ma ko waxee noonu teraanga ju toll noonu yàlla defal la ko ñu wàccale fukki at ak ñaar nga dem bam def benn fan nga nga nga bëgg koo sensé loolu moom euh, mënta mënta te bis bu set danaan nañ nañ waxtaan te nit koo xam ne si yëpp laa dafa waxoon ne euh, nit boo boo boo jëlee cadre renam méngale koog yu daaw muy benn sooy jàpp gor-gor ñoo ngi wàcce foofu kàddu yi di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah